والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نلف بين مراجعة بنداو حديث بن مجيون جل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب نينو بخاتش تيمه چندبو كين dugal ci lamiñam nako raxas juróom ñaar yoon benn bi na ànd ak suuf am na riwaay bu ñëw ni bu mujj bi na ànd ak suuf riwaay bi dafa ne bu njëkk bi na ànd ak suuf am na riwaay bu ñëw ni bu mujj bi na ànd ak suuf naka lañu boolee ñetti riwaay yooyu dafa am riwaay bu ne comme riwaay ya, bu ñëk bi bi nekk suñu karam dafa ne nang ko raxas juroom ñaar yoon bu ñëk bi na and ak suuf raxas bu ñëk bi na and ak suuf riwaay bu ne raxas bu mujj bi ma and ak suuf am riwaay bu ne benn ci juroom ñaar yoy ngay boole suuf naka lañuy ñuy ban moo gën a wër bu njëkk bi. ndax li ci nekk ci mat la xam mooy ko ne soo ko mujjëlee après mën naa am da ngay ajuwaan ndox pour pour raxas. naam bu njëkk bi moom moo gën wër ndax bu njëkk bi soo ko booleeg suuf yeneen yi raxas yi day lenkali suuf si te bu mujj bi soo ko booleeg suuf da ngay soxlawaat beneen ndox boo boo ko lenkalee comme day nekkaat juróom-ñetti raxas ñaareel bi nee nañ riwaaya bi noonu ngay booleeg suuf nekk ci ak te ay xadis bu ñëwee mu am taarud mu am wuté riwaya bukhari ak muslim lañi lañi jital benen bi moy bu ñëk bi na ànd ak suuf moy riwaya Abi Hurayra te riwaya Abi Hurayra ci yenen sahaba euh dañuy jital riwaya Abi Hurayra Cheikh Abdallah Al Fawzan rahimahullah waxna lolu ci tërëm bobu di minhatul allaam xadis isa kaana al maau qullateeni lam yaxmilil xabath xullatayni lu gën a néew ci luñ ko natt mooy cent trois am na ñu ne cent cinquante am na ñu ne cent soixante waaye nag la gën a néew ci lañ ko nattale mooy cent trois mu da jàngalekat booy jàngal ci benn mbir da ngay xool la gën a néew rek nga joxe ko tayib loolu lan la lan mooy lan mooy dégg-dégg xadis boobu xullatayni mm-hmm. mm-hmm. naam comme noonu dafa la bëgg a wax ni fo islam dafa dafa yombal lu néew munu koo sobel su ma tee cent trois lu néew munu koo munu koo sobel tayib naam jamil xadis ibnu abbas ne yonent bi salaa sallam sangu na ci desitu ndaw maymuna ixtasala nabi salaa sallam bi fadli maymuna luñ ciy déggee naam soxna bu jël si sangu set ba pare mun nga sangu ci desitu ndox moomu mun nga sangu ci desitu ndox moomu naam niki noon noonu la daganee tamit ci góor góor bu sangu ba pare mu des soxna mun na ñëw mu sangu ci desitu ndox moomu naam léeg-léeg benn xadis sax nee na ñu bëri la même bu dee keneen sax lu gën a wër bu dee keneen la moo ci sangu mu des. mën nga utiliser ndox moomu nga sangu ci yéen sallallahu alayhi wasallam tere na ci beneen xadis ci xadis yu jàng mu ne bu kenn ci yéen sangu amee janaaba sangu ci ndox mu dul daw ndox boo ne tekk du bouger na boo duggee ci biir sangu ci da ngay tilimal ndox mi soo amee janaaba nga dugg ci biir sangu ci da ngay tilimal ndox mi tilim bi nag moom mooy sa jëmmi janaaba bi nga fa bàyyi ndox mi nga xam ne dafa mel ni nga jël nga sangu janaaba nga taxaw ci benn paan sangu si janaaba ndox moom wàcc paan bi est-ce que dina dagan keneen sangu ci déedéet du dagan da nga ko da koo tilimal comme loolu moom mooy mooy moom mooy tere bi naam comme ñu ñëw ci xadis euh, bi nga xam ne moom la ñu war a jël tey euh, am na beneen xadis kenn ci saxaaba yi euh, ci soxna yonente bi dafa sangu ci ndox mi mu ne ko yonente bi inni kuntu junuban mu ne ko innal maa la yujunib mu ne ko man de dama amoon janaaba sangu naa ci soxna si dafa dugg sangu janaaba génn yoon salaasan bugg a sangu mu ne ko man de dama amee janaaba yoon salaasan ne ko ndox mi du amee janaaba luñ ciy déggee saxoo janaaba comme nal fànn mhm. ni desit mhm. bi keneen mën na naam ciy déggee naam ndox ndox du amee janaaba ndox moomu mënul amee janaaba janaaba bi ci sa yaram la nekk waaye nekkul nekkul ci ndox mi naam xadisu tey bi xadis treize ما حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء أعرابي لا قال في الهرة قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربع وصحه الترمذي wabnu xuzayma mu ne yonent bi salaa abi qataada moo ne yonent bi salaa nee na ci muus innaha laysat bi najis du sobe innama hiya min attawaafina alaykum ndax dafa bokku ci bàyyi ma yi nga xam ne dañuy wër seeni biir di jaxasoo ak yéen dañuy war seeni biir di jaxasoo ak yéen xadis bi ko nekk la mooy abi qataada kan mooy abi qataada xam ngeen ko moom la wax farisu rasulillahi wa alayhi wa sallam daan bari lu muy financé yonent bi salaa ci buy tukki léeg mu jox ko fasam léeg mu koy wattu moom sallallahu alayhi wa sallam bi li ci déggee moom mooy benn dañ ko laaj ci muus mu muus du sobe dafa bokk ci bàyyi ma yi nga xam ne dañuy jaxasoo seen biir di wër seen biir maanaam di jaxasoo di wër di duggate ak yéen munoo leen tàqalikoo ak ak ñoom munoo leen tàqalikoo ak ñoom ci riwaaye xadis bi am nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ko laaj ci muus desitam maanaam bu dugalee gémmiñam ci ndab moo xam ndab bi ceeb la am moo xam ndox ba génn loolu noonu takkitu gémmiñ bi lu takkoon ci gémmiñ mu bàyyi ko fa est ce que loolu sobe la wala wala déet yadu salaa sallam mu ne innaha laysat bi najis innama hiya min at tawafina alaykum hadis bi li ci déggee moom mooy laab bi nga xamante muus laab na ko ak gémmiñam ak làmmiñam ndax fil xaalib muus bu ñëwee ci ndab day sëgg bu sëggee gémmiñam lay jiital fil xaalib comme ñu ne loolu lu muy firi moom mooy laab bi nga xamante ni muus laab na ko naam ndax mbooleem yaramu muus la wala rek gémminu muus la ndax muus la laab ci moom mooy gémmin bi bu dugalee ndabam wala mboolee mi yaram bi day nekk lu laab naam mboolee mi yaram bi ndax amul exception innama hiya min at wax mu wax dañuy wër seen biir yonent bi salaa sallam foo waxu rek gémmin bi dafa dañuy wër te bu fekkee bàyyi ma day wër ci biir di duggante ak yow di génn di laamisoo ak yow comme nekkul rek gémmiñam mbooleem yaram bi mbooleem yaram bi loolu mooy li nga xam ne ibnu qudaama rahimahullah moom la ci al ci al mughni comme lii dafa leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa leeral ni du sobe mu ne innaha laysat bi najis dafa leer ba pare mu indi illa bi innaha laysat bi najis mu ne innama hiya minat tawaafina alaykum kon tam daa leeral ne muus moom du soge moo xam ñam la moo xam yaram la moo xam ndax day wër day dugg seen biir di génn di dem leesa bi na gis tayib ndax eh, xadis bi dañ ci qiyaas bépp bàyyi ma boo xam ni day wër ci biir nit ñi di laamisoo ak ñoom am na exception mbaam àll ak fas boo demee waaw boo demee ci dëkku àll yi bala oto am avant oto di am fas yi ci biir kër yi lañ leen daan takk fas yi dañuy dugg mbaam yi dañuy dugg ci biir kër yi xar yeeg bëy yi ak nag ndax dañ ko ci ciy xiyaas dañu doo salaa dafa ne innama hiya min at-tawaafina aleykum loolu mooy illa dafa bokk ci bàyyi ma yi nga xam ne dañuy duggante ak yéen di génn di dugg seen biir. kon mën nañ jàpp daal mën nañ ci xiyaas bàyyi ma yëpp. Mhm. des yi nga xam ne ne sa moom. Mhm. moom lu mel ni xaj mhm. dañoo. dañoo am na xadis boo xam ne mu ngi ci Bulughul Maram dafa wax ni xaj yi dañ daan dugg ak génn ci biir jàkk ji.

ay naam ay naam yooyu yëpp ay mbir la waaye xadis yooyu dañ ci ñëw moo tax buluxul maraam buluxul maraam boo jàngee benn masala rek benn xadis xadis boobu ngay ngay tontu ci biir ci kanam dina ñëw léegi boroom xam-xam yi ñu ne dañ ci qiyaas ku ci mel ni ibnu Qudaama lépp loo xam ni min at-tawaafin la amul dalil buy wax ni sobe la comme dañ ciy qiyaas mbaam dañ ciy qiyaas fas dañ ciy qiyaas gëléem dañ ciy qiyaas yu mel noonu mooy bàyyi ma yi nga xam ne boo demee dëkku àll ya dañuy jaxasoog nit ñi lan mooy illa bi mooy almashaqa almashaqa tajlibu ak taysir loolu mooy qaayida fiqhiya bi bu fekkee mashaqa am na mooy coono lan mooy coono bi mooy coono tàqalikoog bàyyi ma yi yombul coono tàqalikoog bàyyi ma yooyu yombul muy mbaam muy muus muy fas parce que ci biir kër yi lañ leen di yeew léeg-léeg ñu bàyyi leen ñuy doxantu comme loolu tàqalikoog bàyyi ma yooyu yombul islaam ne la almashaqa tajlibu taysir coono bu ñëwee rek islaam day indi yombal ñu ne comme dañ ci ilxaaq bépp bayima bo xamanteni day wër di dugg ci biir nit ñi yeen bo xamne ne ba mu des xaj ndax ay mbir xaj bok ci lu ñëk moy ibn salaa sallam dafa wax sababu bu nekk ci xaj motax mu deul ñu xaj bu dugalee gémmiñam si làmmiñ nañ ko raxas juroom ñaar yoon bu ñëk bi andak ak suuf ñaarel bi ñu ne malaaka yi hadith muslim innal al la tadkhulu baytan fiihi suura wala kalb ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo malaaka du dugg kër bu am xaj kër bu am bu xaj ñu ne ko boo boolee lii comme xaj bokkul ci tawaafiin yi génn na ci tawaafiin yi am ñu ne léegi lan moo tax xaj dagan bu rëbbee ñu lekk ñu tàqale ndax xaj bu rëbbee ci gémmiñam lay jàpp gémmiñam lu koy téye ñu tàqale diggante xaj gémmiñam ba mu dugal ci ndab ak gémmiñam ba mu nëpp ab rëbb ndax rëbb boobu dangay ngay dindi dar bi alaysa kazalik est-ce que booy xaj bu jàppee lu ñu rëbb moo xam pigeon moo xam leen ak leneen est-ce que noonu nga koy lekkee da ngay dindi der bi léegi boo dindee der bi rek mooy laab na boo dindee deru mooy laab na bi xilaafi nag xaj bu dugalee ci làmmiñ euh, làmmiñam ci ndab ndab boobu raxas rek moom moo koy moom moo koy setal xaj fenn lay daganee ci lislaam ñu ko moom mooy garde wala wala rëbb léegi dëkk tubaab yi xaj ci tawaafin lañu bokk de <laughs> xaj mi nag léegi est ce que dañu indi règle bi ne dëkk bi mënu ñoo takali ko xaji comme xaj da ci dugg est ce que ah ñoom ñoo bëggul takali ko moom ah? <laughs> da dam xamuñu islam jànguñu l'islam aslan comme xaj da ci dugg lu gëna a moy xaj du ci dugg xaj sobe la borom xam-xam wuute na ndax xaj daram sobe la wala yoy lool mom dinañ ci ñew ci hadith bu ci kanam bëgguñu anticiper xadis yi am na xadis bu ñëw ci buloo ci kanam buy wax atte atte xaj ndax xaj euh, gémmiñ bi rek mooy sobe làmmiñ bi wala lépp lu aju ci xaj sobe la wala naam comme xadis boobu dégg-dégg boobu lañ ci am lépp loo xamante ni bépp bàyyi mu boo xamante ni mënul takkalikoo ak nit ñi dañuy jaxaso ak nit ñi di dugg ak di genn dugg ci kër yi dugg ci néeg yi dugg ci waañ yi bàyyi ma yooyu duñu ay sobe ndax illa bi mooy innama hiya min attawafin euh, nga gis ni islam wala mufti wala jàngalekat léeg day am solo su waxee benn xukmu tere mu indi illa bi mu indi lan moo waral ñu tere ko wala lan moo tax mu dagan Hurairah sallallahu alaihi wasallam inna hiya at tawafin utah dagan moy dañuy jaxaso ak ak yeen akhrajahu al-arba'a ñent yi ñoko mata ñent yi ñoyon hmm ci ku bu jege nga tambale ibnu majah naam <laughs> aha Tirmizi Ibnu Maaja yaa ngi ñëw de waaw Buxaari Muslim bokk ju naan ak it <laughs> léegi ñeent ñoo bokkul léegi ñeent ñoo des Buxaari Muslim génn na ñeent Abu Daawud macha allah tudd ko Abu Daawud Tirmizi ah, ah Ibnu Maaja naam ku koy fàttali ku mu jóge an-Nasaa'i an-Nasaa'i comme ñi ñoom ñooy al al arbaa mu ne wa saxu Tirmizi Tirmizi wóoral na xadis bi wa Ibnu Xuzayma ak Ibnu Xuzayma Ibnu Xuzayma ci ban téere hmm? comme Tirmizi bokk na ci ñeent yi dafa ne Tirmizi da koo wëral. da koo bokkul génne na. non mun nañ ko wëral mais Tirmizi fil xaalib man xajam moom bu tuddee xadis ba daan xasanun saxiix saxiixun garib waaw day wax loolu quoi te ñee léeg-léeg ñoom duñu duñu def loolu quoi waaw moo tax mu ne saxaxahu Tirmizi mu ne wa ibnu Xuzeyma ak ibnu Xuzeyma a Xuzeyma ci ban téere saxiix macha allah saxiix bu xusee am na beneen téere bu siiw ñaari téere siiw lam saxiix ak beneen téere bu ti bu siiw boo xam ne borom xam-xam dañ ciy dellu ci asmaaw sifaat mooy téere bu gën a mag bu ñuy dellu ci asmaaw sifaat kitaabu tawxid kitaab at tawxid kitaabu tawxid fil gaalib buñ ko waxee rek ñaar la bu ibnu xuseyma wala bu muhammad ibnu abdul wahab rahimahum allah عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه من المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم bi zanubin min ma'in fa uhriqa alayhi muttafaqun alayhi xadis bi ku ko nettali mooy anas ibnu malik anas mu ne benn waay bu jóge ca kaw ga dafa ñëw daal di saw ci benn côté ci jàkka ji ci biir jàkka ji benn côté ci biir jàkka ji saxaaba yi daal di koy bëgg a njett téye ko xaw ko lottal fa nahaamu nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent tere leen ne leen bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu saw ba pare fa lamma qadaa boolahu ba mu pare saw nag ba mu sawee ba jeexal amara nabi sallallahu alayhi wa sallam bi danubin min maa'in yonent sallallahu alayhi wa daal di digle ab siwo bu mag ci ndox fa uhriqa alayhi ñu sotti ko ci ñu sotti ko ci bërëb bu mu saw comme xadis bi ku ko génnee mooy anas ibnu malik looleen xam ci anas ibnu malik xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa moo ci gën a siiw mooy mbindaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku woote woo xaadimu rasul anas moo la si jiitu ci moom nga ko jëlee ak lan yaayam moo ko joxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii de anas la dama ko indi ci yow uniquement ngir mu lay liggéeyal lan la yaayam namoon ci loolu jox yonente bi anas ngir mu jàngale ci moom moo tax islaam dagan na léeg nga wax benn mbir fekk fekk am na beneen prétexte na joxe benn prétexte fekk am na leneen loo ci yéene loo xam ne lu baax la anas yaayam prétexte bu mu joxe mooy mu liggéeyal yonente bi waaye lam ci gënoon a namm mooy mu jël jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa filan haza allazi lu bari ci jikko yonente bi sallallahu da koo koo jël ak lan lool xam ci moom ak lan ku gudd fan la na ba xilaafatu ki nga xamante ni moom mooy ah, yazid mooy avant dernier saxaaba bu mujjee faatu ñenn ñi ñu wax ku mujjee faatu moom mooy kan mooy Amir ibnu Tufayl avant kooku Anas ba muy faatu kooku rek am na borom xam yu ne kooku rek la bàyyi ci kaw suuf Amir ibnu Tufayl yaani garib yéen a ngi imaginer Amir ibnu Tufayl doon dund ak saxaaba yi doon dund ak bu baax boobu mu xëy benn jour gisatul kenn ku dul moom. haula wala quwwata radhiyallahu anhu naam ah eh allah bokkoon na ci saxaaba yi nga xamante ne ñoo ëppoon lu ñu solo ay xadis ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Anas ibnu moom Anas ibnu Malik bokk na tamit ci saxaaba yi nga xam ne dañuy melal jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bu muy nettali ne yonente bi nekk naa këram fukki at musuma wax dara musuma yéeg naam nekk naa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at musuma wax Anas lan moo tax euh, defoo lii nga def lii te waroo ko woon def lan moo tax defoo lii te nga waroon ko def naam loxo bi musu koo laal tamit lool day bokk ci xusnu at tarbiya mooy yonent bi salaa sallam ku la. xadis yi mu génne bëri na ci yoo xam ne wàllu këru yonent bi lay wax salaa sallam. naam naam naam sax anas lu bëri ci ay xadisam mooy ci kër yonent bi salaa sallam lay wax def na ni Maymuna def na ni wala mu ne yonent bi salaa sallam def na li woon mu nga fa woon moo nekkoon di liggéey bi sallallahu alayhi عليه وسلم رضي الله عنه قال من جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بن واي بجي كوغا مو نيو تي النبي صلى الله عليه وسلم عربي بن واي أمنا نيو موي زول خويسرة اليماني زول خويسرة خم ngeen ko mom lañuy wax ne mom moy xawarij mom lañu jox naaw xawarij mom mo ñewon fekk yoonu sallallahu alayhi wasallam fekk yonente bi salaa sallam di séddale mu ne ko maam maandu am na ñu ne du moom al aqra ibnu yaabis la am na ñu ne ayna ibnu xasn la waaye al aqra ibnu yaabis moo gën a wër ndax zul xuwaysira ndax kii dañuy nettali ni ginnaaw loolu yonente bi salaa sallam na mu rafetalee jëmale ci moom dafa mujj a dugg ci lislaam te zul xuwaysira yonente bi salaa sallam dafa ne ñiy génnee ci moom ñooy kilaabu ahlin kilaabu ahlin naar ñooy xawaari ji kom nekk zul xuwaysira waa ji dafa ñëw ci jàkk ji ci peggu jàkk wala ci benn côté ci jàkk ji daal fay saw saxaaba yi song bu ko tane yéen salaa ne ko bàyyi leen ko mu àggali ab sawam ba pare ba bu paree mu ne jël leen suwa ndox bu rëy zanub mooy suwa ndox bu rëy bu la ko jaawale ak zunub ndax zunub dammi daa la zanub bi fatxi daa comme moom mooy suwa bu rëy mu ne sotti leen ci sotti leen ci ndox xadis bi ñu am ci ay jàngat yu bari moom mooy bërëb bi nga xam ne dañ cee saw buñ ci sottee ndox ndox mi da koy laabal bërëb bi nga xam dañ cee sow buñ ci sottee am ndox ndox mi da koy laabal moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne indi leen ab siwo bu mag ci ndox ngeen sotti loolu benn la ñaareel bi am na beneen xadis boo xam ne xadis bi ci riwaaya Abu Daawud dafa ne xuzu ma baala alayhi min wa alqu jël leen li nga xamante ni fala saw tonni leen ko ngeen sànni ko boobu ñu na ci riwaaya abi abi daawud waaye riwaaya bu nekk suñu kanam ton tonni leen suuf si amu ci lu ci am mooy si jël rek daal di koy daal di koy sotti ne abi daawud riwaaya bu mu génnee dafa daif da xadis bi mursal la mursal mooy loo xam ne taabii bi moo ne yonente bi nee na te waxul ci kan la ko jëlee ndax taabii dajewul ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laysa kazalik comme bu ñu nee bi nee na te xamuñu ci kan la ko jëlee mun na ko jëlee ci taabii ni moom te xamuñu tamit ban saxaaba la la waddal ci diggante bi comme ñu ne loolu mursal la te mursal lu gën a wër mooy min anwaai daif ci mustalaxul xadis dafa bokk ci xadis yu daif ndax dafa am inqita dafa am dog-dog dog-dog bi mooy diggante taabi boobu ak yonente bi ñan ñoo fa nekk xamuñu ko ndax mun na nekk du saxaaba kese la ba ñu tudd mun na nekk moom taabi bi ci beneen taabi la ko la ko jëlee te taabi boobu ko jëlee est-ce que ku ñu nangu xadisam la parce que taabi du ñëpp la ñu nangu seen xadis ay am na ay taabiwul yoo xamante ni masalan dañoo mun fàtte. masalan bañu magate eh, bañu da ñu ba at bari dañu commencé jaxase xadis yi eh. jël xadis bi door ko ci chaîne bële jël chaîne bële door ko eh, ci beneen xadis mo ñu ne bi masal comme tonni ko bu sawé nga tonni fa mu saw loolu warul lu gëna wër moy nga sotti ci nga sotti ci ndox loolu moy li nga xam mom mo mom mo mom mo gëna wër na mu am benen masala est-ce que sotti ci ndox mi laa budda la wala jant bi mën na woowal bu woowalee suuf si rek mooy laab na wala laazimi sotti ci ndox ñaari yëpp mhm. mhm. moo gën a gaaw comme dañ koy soxla léegi ñu ci ndox jàkk ji suuf la woon de du ay tappi ah te jant bi am amoon na jamono jooju newul bàyyi leen ba jant bi ko am njëriñ dafa sotti ndox. yéen a salaam dafa sotti ndox bàyyiwul bàyyiwul jant bi woowal ko dafa sotti ndox kon li nga bëgg wax moy jant bi mënu koo setal il faut ñu sotti ndox. ndox daal moo ndox moom moo gën ah ku wax leneen. ndox moo gën a wër jant bi mënu koo woowal. Hmm? Hmm? ndox mi moo gën a gaaw wi bi su ko woolee dafay set comme na yoonu science am digle ndox nañ ci sotti ndox te waxul bàyyi leen jant bi wool ko naam am nañu wax loolu ne nañ ci biir jàkka la te jàkka yi dafa am mbaar te jant bi du ko gaaw wool loolu benn wax la ñaareel bi ñu ne julli bi ba mu ñëwee saw fa waxtu julli dafa jege comme mbokk bi mu wax waxtu julli dafa jege te comme que waxtu julli jege na mu saw fa du gaaw a woow daal di ciy sotti ndox am na ñu ne xëy na waxtu moom da doon julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu paree julli timis la ginnaaw timis nag diggante timis ak gee dafa gaaw ñu xam ne munu cee woow te guddi la am na ñu ne comme que jàkka la te jàkka nit ñi dañ fay dugg chaque instant ak chaque minute dañ fay dugg nit ñi dañ koy soxla te am na saxaaba yu doon fanaan ci biir jàkka ji loolu nañ ci ñëw xaj benn xadis ci buluux ñu ne comme nañ ci sotti mu set ndax nit ñi saa ne ñu ngi dugg si jàkka ji xataa ka tukki ñëw amul fu mu dal fa lay dal ci ci jàkka ji moo tax ñu sotti ci ndox waaye lu gën a war mooy jant da koy laabal su demee ba wow waaye nag jumhurul ulama ñu ëpp ci borom xam nee nañ faaw ñu sotti ci ndox ndox dong moo koy laabal xanafiya yi ne déedéet jant da koy laabal jant bu ko woolee day laab aajowul ndox ibnu tayma nee na loolu moo gën a dëgër waxu xanafiya yi mook ibnul qayim ibnu taymiya ci majmuul fatawa ibnu qayyim ca iraasatul lahfaan nee na jant dina woowal ab suuf suñu saw bu ko jant woowalee day laab aajowul sotti aajowul sotti ndox te wax jooju mooy lu gën a dëgër mooy jant da koy laabal nga jëlee ci ni jumhur nekkul lépp lu ñu wax rek moom moo wër loolu nit ñi leen dañu def njuumte dañu def njuum de jàpp ni jumhur lu ñu wax rek moom mooy lu wër déedéet jum nañu gis benn wax kenn ñëw wuteeg ñoom fekk kook la mu wuteeg ñoom moom moo moom moo gën a wër nekkul laasim la ëpp ci borom xam lu ñu wax rek moom mooy lu gën a wër déedéet moo Ibnu Taymiya booy xool xanbali la ci lu ñuy wax mais dafa ànd ak xanafiya yi ci seen ci seen gis-gis bi ñu tontu jumhur ne leen jumhur bi nga xam ne ñoom nee nañ suuf si fa ñu sotti ci faaw ñu sotti ci ndox mooy lu ñu tontu sànq ne la yonent bi sallallahu alayhi mooy jàkk ji ñëpp koy soxla saasu ne moo tax nañ ci nañ ci sotti ndox mu nekk lu gën a gaaw bala moo gën duñu xaar xadis bi ñuy jàngat ci ay mbir mu islaam dafa digle ñeewantal jëmale ci ki nga xam ne xamul ki nga xam ne xamul nga bañ a taral ci moom waa boobu ñëwee saw ci jàkka ji waa ji jaahil la xamul moo bi sallallahu alayhi daal dina saxaaba yi bàyyi leen ko comme fii dangay gis al uzru bil jahl dañuy jàppal nit ci ngàntub réer loolu mooy lu gën a wër ni doo ñëw ko ci loo xamante ni xamu ko waaye da koy xamal ba noppi xadis bi dañ ciy dégg alqaida mooy dafu azamu dararayni birtikaabi axaffihima mooy ñaari lor bu ñu dajee dangay xool bu ci gën a oyof nga tànn ko ana ñaari lor yi aha aha macha allah macha allah jamil ñaari lor la lor bu njëkk bi mooy saw na ci jàkk ji da nga ko lor la ñaareel lor bi mooy too daw song ko du mën a téye boppam saw bi dina dina tasaaroo kon yonente bi sallallahu alayhi wa foofa jëfee xaay mooy ñaari lor bu ñu taxawee da nga bu gën a oyof nga jël ko lu si njëkk mooy waa ji bu fekkente ni saxaaba yi dañoo daw song ko bu ko tere benn dina takkal jàkka ji dina takkal boppam dina takkal saxaaba yi. est-ce ndax su boobaa du contrôlé wu te mënul tee sow ña ko song dina leen takkal dina takkal jàkk ji foofu yëpp léegi bu gi lu muy doon mooy jàkk ji yëpp la ñuy sotti ndox saxaaba yi dañu mujj dem changé seeni yére ko yonent bi sallallahu alayhi ñaareel bi mooy feebar ak lor bu nekk ci dagg saw ndax saw boo koy dagg dalay lor parce que bu ñu ñëwoon téye ko rek ne ko say saw mu téye ko après naqali day metti te loolu médecins yi dem nañ ba découvre lool ne dagg saw wala di ko dog loolu day indi day indi feebar day indi feebaru feebaru naq aywa naam comme fi ba darsi bi di ñëw الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد